asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi fi teew te di leen présenté délégation bi ma àndal te ku ci nekk tuddal nañ leen aw tural wax leen ni ma demee moom ak li ko fi indi di nuyu ñi ma fi fekk muy préfet bi nga xam ni. moom moo fi teew teewaayu président de la république ak professeur bi nga xam ni moom moo yor dogalu barab bi di kilifa gi ak mboole seen jàngalekat yi ko dar ak mboole seen donga yi nga xam ne ñoo nekk ci jàngukaay bi te yàlla def ñu woonu ñu wuy si leen ngir yàlla noo ngi leen di sant bu baax ci seen teewaay ak toogaay bu yàgg bi di nuyu sen way juri di nuyu mboole sen dongay daara yi sunu waxtaan ak yeen nak man na baña bari ndax innamal amalu binniyat wa innama likulli imriin ma nawa jëf yi ci yéene yi lay tàmbale te li nu leen yéene lépp mënuñu koo jëf mënuñu ko wax waaye day dee ci xol bi li mën a comme ay action ñu feeñal ko seen bët tege ci looloo tax bi ñuy indi ay nattangoo yoo xam ni ñoo ngi yéen yéen bokk lu ngeen di def ci milieu scolaire bi di jàng waaye teewul nekk nañ ci tey ba am lu ñu doon ci àddina si am lu ñu doon ci biir Sénégal te seen lislaam yàquut seen taalibe yàquut parce que fii barab la yoo xam ne dañ fiy jànge éducation ak enseignement moo fi dajale nit ñi mais li ëpp ci nit ñi danañ fi ñëw ba dem te fay ko daam ba ba noppi li ëpp ci nit ñi danañ fi ñëw ba dem mën nañ fay jàng làkku jàmbur waaye daañu ko dégg waaye xam-xam bi tax ñu doon doon jàngal làkk bi pour jàngal la xam-xam bi boo mëntul ca làkk wa nga yem waaye doo yegg ci xam-xam ndax ñun suñ mili yi ni ñuy jàngalee dafa metti dañ lay jàngal làkku jàmbur ba noppi doog laa jàngal xam-xam bi nga xam ne mooy objectif ba li doon hëlëf ba da ngay jàng làkku jàmbur ba noppi doog jàng xam-xam bu doon ne ci wolof lañ leen di wax ne benn boo ko booleeg benn égal ñaar mais yéen ci làkku jàmbur dañ leen ci téye lu at ba at ngeen di jàng jàmbur doog a ci xam-xam waaye dama ne est nekk ci barab yooyu di jàng te lañ doon wax ci wàllu tàggat du nekk ci yow da da ngeen déglu nag fukki orateur ak juróom benn mënuñoo am ci mel ndaje da ngeen may bàyyi maa jël parole bi ma wax li may wax su ma paree après ak seen i détails ngeen def parce que philosophe bu ndaw ak intellectuel bu ndaw moo gën a jafe recadré c'est parce que dafa am esprit boo xam ni dafay yéeme bu critique lay am parce que day defee ne moom rek a fi nekk ak jataay bu lu nit ñi bari bari boppam lay gis day mel ne woykat buy doog a tàmbalee woy li yi neex neex benn jaaxalu waaye bosoma koy jooyloo te sax du man ab jàngalekat laa ab yarkat laa ab tàggatkat laa moo tax su ma ñëwee ci yu mel nii coow li du ma déranger mais danaa fexe ba recadrer ba ñëpp déglu ma parce que pédagogue laa te pédagogie mooy nga toj bopp def ci xam-xam te du nàcc man ab pédagogue la pédagogue pédagogie moy ko toj bop def ci xam-xam ta du nacc motax lu jaral pour ngeen jël temps di rouvel jaral na mako ba ngeen noppi ma wax len limu len bëgg wax hmm? parce que ñi dimbali ñoo gëna difficile sen milieu bi ni parce que man ci milieu yi ma doon dugg milieu yu doy waar la motax mané des fois lima la xari daru man ci ñi ci cause bi ñi ko causé ci laa bokk ñeneen ñu mel na man ci lañ bokk parce que ñun ay doomi daaru lañ mais li ëpp ci suñu mission ci àll bi lañ ko def li ñu réalisé ci àll bi lañ ko réalisé moo taxit bi may ñëw modèle yi may indi ci àll bi la jóge jógee bi am nag mooy beneen génération bi nga xam ni daje nañoo ak sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ bàyyi toog di jàngale man sëñ Bas jàngal la ma mais sëñ Bas jàngaleetul génération boobu bu ñu nekkee ci barab yi di sàkku ji xam-xam dajeeg nouvel ordre mondial ak ni muy doxee bu ñuy tàmbi ji crise des valeurs bi nga xam ne moom moo yàq addina si duñ ko yëg duñ ko yëg su ko defee nag dangay dem ndànk-ndànk ndànk-ndànk ñu yàq sa lislaam ndànk-ndànk yàq sa liimaan ndànk-ndànk ñu yàq sa lexsaan ba mujj yow duutoo doon kenn moom mooy tax nga dem ba yàgg nga gis kuy robel yow rek taxaw fee ne man atena atena gëmatuma tariqa gëmatuma xaqiqa boo muytul sax mu ne la gëmatuma nubuwa maam prophète yi ñuy yónni sax gëwuma leen c'est parce que am na benn waay boo xam ni mi ngi def benn émission bu tudd Sual Jarri ñu koy wax oustaz Rachid baayam c'est marocain imam la fii ci Maroc ñu jàngalee ko Maroc lenn ci njàngam mu mottalee ko Arabie Saoudi dafa taxaw fi mu toll ne génn na ci lislaam yëmu dafay am na ay émission ci télé bi di wax ne alquran wérut yonent bi yàlla yónniwu ko te bàyyam di imam fii ci Maroc lu ko waral dañ koo jàngal te yaru yaruñu ko parce que nit bu ñu koy yarul dafay am xalaatu boppam boo xam dafay am liberté ci xalaatee nu mu ko neexee te diine day tënk nit may ko liberté pour mu xalaat lu ko neex diine moomu nag suñu suñu génnee ci moom ba nanguwuñu ko jëfandikoo su boobaa environnement bi ñuy dund ak la fa xew loolu moo ñuy yàq mais diine dutuñu yàq waxoon naa ci ikat mane ma tubaab yi bi ñu bëggee instaurer crise des valeurs dañu ko togg ay at ndax ñoom dañuy planifier bokkuñu ak ñun liñ bëgg a def fekk vingt ans dañu koy togg bi ñu bëggee indi crise des valeurs dañoo indi crise économique crise économique nit ki dafay dem ba mujj yi di bëgg lum dul mën a am ba pare ci biir crise bi dañuy indi ay xewtu fi mu toll boo xoolee ci jamono bii lañ gën a valoriser affaire u marque yi ba téléphone léegi sañoo rek yem ci ne dafa nekk besoin pour ngay woote ak di wuyu da ngay laaj mu am ay application yu bëree bari en même temps dafa am nu mu war a tudd am nu war a mel. léegi loolu bu fekkee ne liggéeyoo salaire bu la ko may da ngay obligé bokk ci ay lobby wala ci ay kuréel yoo xam ne dafa lay jàppandal jot ca loola. am nay otoom am na dàllam maanaam marque ci am nay parfum am na lépp lu mel ne ay ay ay Dolce Gabbana nga xam ne ñooy góor jigéen ñi gën a rëy ci addina bi te fii may waxee ak yow. boo moytuwul am na ñoo xam ne ci doomi dëkk bi seeni i ak seen i montre ña ngay teg ak seen i ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Hmm? déedéet yow yow yow yow <laughs> léegi nag loolu bu fekkee noonu dëkk yi ñu nekk tey nga xam ne nit dafi daan jógee defaru dem ci wàllaa di defere léegi nag contraire loolu moo am man daaru fi la ma koor gi fekk dama fee wooree dama doon def suma woré ba dok ba ñu waaj a damay tal sama auto même suma gënné sama kër ba tollu fi ci centre bi la xawma espace jeune bi ba ma way yexi sama kër gi 30 lay daw ak 20 té ñu bépp ay xalé lay la ca gëna doy war moy xalé yi dañuy and goor ak jigen ci koor gi mu no daw mu no daw mu no daw ay par couple lañuy def beneen bi ci des la ñuy sol dafay saa yére dañuy sol loo xam ni col bu rafle lay doon duñ ca yem waaw ah, yéen laay waxal parce que xoolal euh, lii may wax nii loolu laa daan wax ak drogué yi fekk leen ci seeni millier di waxtaan ak ñoom ba jëlee leen ci liñ nekk fekk ay nit yor ay armes rey naa vingt nit rey naa nangami nit naa nangami nit ma ñëw waxtaan ak yow waxtaan ak yow ba génne la ci chronogramme boobu indi la feneen li ñuy wax nii waxu ñoog waa Sagata wala waa Mbirkilaan yéen waa Daaru yéenee def loolu jël ay MP teg ay musique ci waxtu koor ànd ne da ngeen a dog ba noppi da ngeen di doxantu pourtant bi ngay def loolu say leçon mi ngi sa kër est-ce que révisé nga ko jàngoo ko waaye léegi nun naka la daaru di bàyyee xelam ci yow pour nga nekk futur ministre wala président wala directeur walla kilifa ci benn entreprise duñ ko xalaat c'est parce que jikko yi ñu bëgg ñu jëmbat ko ci ndawul daaru ba taxoon borom daarul moxti sëñ Touba dawloo ko mbooloo meeg li ci loxo loxoy mbooloo yi mooy ku judd ci dëkk bi amuk defaru su fekkee ne ñi fii nag dañuy jéggi li ñu war a roy ci dëkk bi di roy Occident wala ñuy roy feneen surtout dakaar gi nga xam ne mooy bëtub Sénégal léegi nit ñaa nga fay jógee di nekk ay murid saarix di mokkal alquran mbaa ñu wàcc mbaa ñu miin ko ba pare xam seen wàllu diine te yàqul dara ci seen njàng ma ñuy jàng ci wàllum tubaab loolu moom moo tax ma indi leen ay modèles yoo xam ne ci milieu scolaire yi ngeen jaar lañ jaar mais seenu taaliba dara yàqu ko bu ñu fexee nag ba taalibe gi yàqu loolu mooy complexe parce que maa ngi ko doon ma ne ko li jii boo woote woon lu jëm ci yàlla man ngaa gis mag ñi mais doo gis jeunes yi te fii nu toll bu nu woote woon match amical wala leneen xale yëpp fàq dem mais buñ ne kay leen ñu dem raxasi jumaa ja walla bale wala sëkk doo gis kenn addina nag moo toll foofu fii nu toll parce que crise de valeurs bi am dafay xiir nit ki ci di ko jox ay libertéem loolu moo waral li ñu àlliwaat as siwaajul mis mis misley ni di am muy wàllum góor jigéen yeneen ak yeneen yu ñaaw yoo xam ne dara warul ko lu ludul tubaab bi mi ngi lay janc ne da jëm ci addina boo xam ne da ngaa war a ubbiku ci lépp waratoo am fu ñu lay sàkkal fooy yem ak foo dul yem beneen bi ci des mooy dañoo fexe ba ubbi addina bi amatul ay sàkket c'est parce que bu njëkk bi àddina bi di am ay frontières nga am sa kër sañ koo tëj am sa dëkk sañ koo tëj tëj ku la yàqal nga génne ko sa dëkk loolu amatul léegi frontières yi dafa ubbi ko avec l'internet da nga yar sa doom ci biir kër gi yëgoo ne génn na di copie ji culture occident te doo ko yëg da ngay xëy xëy mu nekk indo sa kër doo ko yëg wala mu nekk chinois wala mu nekk japonais wala mu nekk togolais te doo ko yëg li waral loolu mooy internet dafa réduire temps yi ak espace yi kon nag loolu li ci war mooy teel a defar ndaw ñi waxoon naa ko ca ICAT 2 ma ne ñu teelee ndaw ñi internet defe naa ay 2011 la woon ma ne bu ñu teree ndaw ñi internet mais nañ leen forme nu ñuy duggee ci internet parce que nit ak dañ kumpaam loo ko tere lu ne bu xaabaabal te bu ca xaabaabalee bu yàqu ay bokkam duñ ko yëg am yi professeur docteur Khoule mais xam na ci dara léegi dañoo yoonal ne léegi ku bëgg a tux yàmbaa tuxal sama yoonu mujj wi rek New York mbedd moo jaar ña ngay tux yàmbaa amatul tere dangay dem ba jàpp nga ne lu bon la sax mais da nga naan moo tane c'est parce que comme tëreetuñ ko ku ciy dem sago nga ciy demee ñaareel bi ñi ci duurut alal di yàq nit ñi duutuñu ko mën a am ku bëgg a dof nag nga dem dof sa dof bokk mais doo doo defaale keneen parce que amatul sàcc amatul làkkatu amul sànc amul làqutu sàngaraa ngi fi mu toll Sénégal kenn tëju ci kenn di te li yàmbaay def ci nit la lay def ci nit non waxuma ne nañu ko def waaye dama la bëgg a fi yàqute toll ci addina kon su ngeen amee ay repère kenn ku mel ne Cheikh Ibrahima Fati mu nekk na namousaj nekk modèle koo xam ne bi ñuy exilé Serigne Touba mi ngi ci à l'âge de 30 ans Cheikh Khoudoul Khadim nekk à l'âge de 40 ans imagine leen yéen ñii fi ne am ku ci magam tukki woon dénk ko appartement ak benn jabar ak benn doom bala ñëw kër gi tas parce que expérience bi ak dignité ak personnalité ba nga war a am ba man a roy Cheikh Ibrahima Fati en tant que borom 30 ans yu ñu dénk lu toll na yoonu mu dénk ko ginnaaw mu yor ko ak honneur yor ko dignité yor ko personnalité ba Cheikhul Khadim dellu si mu delloo ko ko ci anam goo xam ne dara yàqut kon gone yi jàng si ci école bi nañ yëg ne ñi ngi nekk ci dëkk boo xam ne mi ngi tudd Daarul Mawti du ñi ma jàkkaarloo rek laay waxal de maa ngi wax ak ñi ma jàkkaarloo di wax ak jaca wàlla di wax ak ñeneen ñoo xam ne jour bi mën naa jàll sax après ñu dégg ko ci yeneeni barab bi koy dégloo imagine len taalibe bi nga xam dara dekk loxo daru lot duggu oto jël premier do dan ñew yam fi rek ci ñaari élève wala ñett mu xol len ca kaw ba ca suuf domam yam bayyi ca kërëm bëggut ñu melni ñi muy romb te bu jëk fo ma sa bayyi ko bo duggé daru ñi ngay romb da ngay bëgg sa njabot melni ñom te lolu dara ko complexe rek complexe rek parce que doomu adama beauté yi ci ëppam mi ngi ci biiram wax naa ko benn mbokk ma ne ko gis nga handicapé du caageenu cër bu ñu amputé handicap dëgg dëgg dëgg mooy ko war a am xelam jëfandikoo ko te mënu koo jëfandikoo kooku moo am handicap lii luy def ginnaaw nun njaboot gi ñu koy defal néewuñu ñi suñuy taalibe néewuñu da ngeen di dajale addiyee di ñu jox mais dañoo bokk ci ñi war a développer Sénégal te ñiy développer Sénégal war nañoo mën a jugee fii di dem di développer ci yeneen i barab ba mu law ci Sénégal te loolu éducation rek boo ko man te éducation ci la ñuy jàppale professeur leer na ma ne lii may wax chaque jour mi ngi woo ay élèves di tëjoog ñoom ci bureau yoo wax ak ñoom bu nu noppee ci école bi kër ya c'est parce que élève boo gis ci kër lay bàyyi ko traversé mbedd ñëw ci école bi su noppee day traversé waat delluwaat ci ay barab am na ñoo xam ne la seen way jur bëggoon ci ñoom ci école au lieu école def ko ci ñoom safaanu loolu la école def ci ñoom am na ñoo xam ne dañuy ñëw objectif bi way jur yi amoon dañu mel ne dañoo échoué xale yoo xam ne dañuy dugg école boo moytuwul mbett dal leen ñu tollee diggante sax ca école ya seenum njàng daal di yàqu yooyu yëpp yu ñu war a duut baaraam la pour éviter pour éviter ko soo gisee bi ngeen ne bi ñu ngi lay invité yow moom xam naa vendredi bi ngay ñëw ma ne leen ñëwuma vendredi lu may doy vendredi. vendredi ña fay ñëw ña ngay jàng xasida di jàng alquran lu may wut ci vendredi bi bis bi nga xam ne yéen ca ngeen nekk kay di def la ngeen war a def ak lu ngeen war def man foofu laa soxla. foofu laa soxla. vendredi bi boo ñëwee xaala allahu xaala rasul ngay wax. wax leen xasida yi Serigne Touba yi mais ñoom ña nga ca loola mais yéen ñi nekk ci showbiz bi def seen bopp ay num tuddati yéen lañ war a ñëw waxal ak yéen ne leen man ngeen a nekk ay taalibe yu Serigne Touba doon ay jullit di ay murit nekk ay intellectuel te maanaam nit du jóge ci àll ba mukk mën a naan seen ndox su am na ñoo xam ne ci école yi ay victime lañuy doon te duñ ko mën a wax am na ñoo xam ne ci ay victime la ñu doon te ko mën a wax li am solo nag mooy waajal sa bopp yar sa bopp fii bu góor ji dee ay Cheikh Ibrahima Fati jigéen ñi nañ nekk ay Soxna Fati Isa moo tax bi ma ñëwee ma waxtaan ak président ma ne ko gis naa ñi ngeen disee ci école bi baax na mais nañ fexe nag monument borom daaru mu ti am fi waaw dafi monument borom daaru Cheikh Anta baax na parce que ci yoonu mouride la gane jamono ci lañ ko yare fi la jangé ba carrière luñu wax carbone 14 koku sagal na yoonu murid légui à part ginnaaw cheikh anta ana yenen cheikh anta yi fuñ ne defatuñ ben recherche dañuy nelaw te internet bi kep ku jël adinam def ko ci day gattal am xelam ndax xel mo matayam borom xam-xam yi loko gëna xam bu mu gëna a mais lu mu gën sori tal bi gëna nelaw te internet bi day tax doonu xalaat do tok ben jamono di méditer wala nga nek ci lenn lu lay amal njariñ soo moytuwul li xew tay euh, diw moy beus diw moy nangam yoyu amul njariñ bu nit ñi di top mordu yi wutal modèle bu nit ñi top mordu yi wutal model te Serigne Bassirou bëgg na ko ko jappalé ci dëkk bi légui borom ciak ciak bo gis ma ngay tek musique dëkk bi roy way la xalé yu yi xëcc tuba yi wàcce ko ba tuba ju ndaw ji di feeñ loolu lu ko gën a salte amut amut loolu civilisation américains yi ñoo ko doon def bu ñu leen tëjee ci kaso yi comme ceinture yi bu ko bàyyee ñoom du sécurité mën nañ cee bopp ñu dindi ceinture yi bàyyi leen ak am ci ñoo xam ne tamit ña nga gis ñu ñuy doxee noona poste boo dem fetala nga ca ci américains yi sëñ bee xam ne li may wax ñun nag koppi lañ man kole ko ba mel ne ñoo ko sanc mais mënuñoo su suñu yëfi bopp. Chris Koros sol ay jiin yoo xam ne da nga koo désiré say pooj di feeñ dégg nga ay pinot ay yoo xam ne du tus te col yiw yi nekk fi dégg nga sa waa kër amuñu lu lekk sa waa kër amuñu lu ñu lekk amu ceeb baa ngi nii di waaj a jeex facture courant baa ngi nii. sakkati sa wayjur waa ngi nii wala mir baa ni wala seng baa ni di sen xale bo ci gis muy jang si école yor iphone 14 foko jele foko jele foko jele xale bo gis muy jang si yor yor yor fuldu foo jele fuldu bi foko jele xale bo gis muy jang si bëgg yor greffage 300.000. 000 foo boo ko jëlee waaw waaw waaw te li nga war a def nii ci sa kër bàyyi mi ngi nii na jom na waaw léegi waa léegi su fekkee ne loolu am na ta nga ne yow bëgg nga ëllëg ak si biir nga taxawu sa bàyyi te jamono bi mu sonn bay lottu yaa ngi am lu dul lenn jëfandikoo ko bàyyi sa yaay ngii di jaay kafe dëkk bi du dëkk du dëkk boo xam ne nit ñi dañoo am koom de même ñi fi am koom dañoo amoon démb fii ko ma fi tuddal ci ñuy wax ku am koom mën naa laa nettali démbam ci lu ay waajuram nekkoon nekkul woon dañoo xëy rek juddu ci ay milliards déedéet ay góorgóorlu lañ ba yegg foofu pourquoi pas munoo roy ci ñooñu waaye rek nga bëgg a doon al boo xam ne yow xamoo fooy teg sa tànk bum riir riiree nga jug riirandoo am na ñoo xam ne seen bopp yi moo feesu te dëkk bi ku fi yeewoo ñu di la tudd di tudd Cheikh Ibrahima Fati dara war nekk sa bopp nekk nit am na ci ñoo xam ne naar bee li bëgg rey moom naar bi waaw waaw waaw wallaahi da da ngeen muus muusulu hmm? waaw léegi ba ma ne ma ne da da ngeen ni muus muuslu yéen a ngi may dégloo da ngeen ni muus muuslu waaye bala eh, am na ñoo xam ni naar bee leen bëgg naar bi te eh, gis nga naar bi wallahi mënu leen a muus a muus ba tubaab créé lu tudd carte organiser ko ba pare di pent te bala ngeen cee sëq da ngeen sonn man yeex naa koo dama am benn taalibe mu gagné ci mil dikk ne ma 700000 yaa ngi nii seen bi loo ci xam ma ne ko baye naa la ko mi ngi taxaw fii ci mbooloo bi gagné 700000 ñëw na ma 700000 yaa ngi nii ma ne ko bàyyee naa la ko. su ma ca jëlee jàngal ko nu ñu joué naar bi am na ci koo xam ne daa dem ba yàgg mu ne ma sëñ bi li nga waxoon dëgg la bàyyi naa naar bi carte la te mënoo xëy xëy la nga ca bëgg nga am ko te ay naxaate rek la te fii nu toll yooyu yëpp ay possibilité la yoo xam ne dafay yombale nit ki mu am moyen pour mën a ñàkk kilifa parce que bu fekkee ne des fois am ci weer mi lu sa bàyyi munta am ci at mi soo moytuwul ñuy lay yàq nga commencé ñàkk kilifa lu sa bàyyi wax nga ne non li paa bi li ñu wax nii pa passé na waaw paa bi moom xam nga comprendre lul daal waaw bàyyi la après danaa ko nangal danaa ko nangam sa ne sa bàyyi moo la gën a xam li xew yow addinaa la këf rek nga ànd ak ak sa doole ak sa kattan ak fugu de jeunesse nekk ci lu la neex mais jamono ngi ñëw parce que jàngal ngeen ñu fii loo xam ne léegi ñun ñun ñëpp turloo ngeen ñu suñu rànkooñ muy sëñ Saliou Guissé est-ce que sëñ Saliou Guissé dafa def yàlla lu yées la ngeen di def yàlla mbaa du ko est-ce que dafa am lu mu manqué ci wàllu takkaay wala ci càngaay wala ci intelligence loo xam ne yéen da ngeen koo am ba moom bu dem tëdd ci armée li nekk salle d'attente di xaar yéen ngeen nekk fii yéen ci milieu d'activité bi di yëngu nu leen neexee am na lu mu ñu jàngal fal mawtu aqrab wa addaha wa amar yaati baxtatan de amul ndaw amul mag moo tax ki naan damay passé temps dafa war a évaluer li mu am ci temps nu mu toll doog a passé temps mais yow di passé temps boo xamoo xamoo liñ la ci may nu mu toll nga ne da koy passé kooku yàq temps amu ci kenn ci nun ñi ku fi nekk ku xam ñaata minute a des ci dundam ak ñaata heure ak ñaata fan kon même milieu bi bu fi nekkee di jàng nañ xam ne li jiitu mooy ay jullit lañu ku ñu gis war naa gis ci suñu xar kanam ne ñii ay jullit lañu en même temps ay murit lañu te milieu bi dafa nekk milieu de rencontre boo xam ne nit mën naa amee feneen brevet mu war a ñëw dugg si fii wala nit jugee feneen ñu affecté ko mu war a ñëw jàngale fii wala nit jóge ci beneen barab ñu orienté ko daalul Daarul Muxti mu ñëw indaale culture boppam ak dundiinu boppam mais bu ñëw war naa fekk ñi nga xam ni dañ leen meññee ci dëkk bii ñu nekk ay ay ay ay modèle imaginel tey kaay kaay Masamba gis nga kii lycée Limamou Laye la amee bagam mi ngi université bo tey jii booy Dakar la mais tey boo ko doon jeex ci wàllu xam-xam mën na laa jommal ci mbirum xam-xam te teewul mi ngi resté nekk ab jullit nekk taalibi Sëriñ Tuubaa may waxee yow ñoom ñoo jiite mouvement des élèves étudiants xidmatul xadim di amal ay conférence ak i jataay ci koor gi ñoom laa doon yebal ñuy dugg ci salle de classe yi di def porte à porte pour que image yi ñuy gis ci Daarul Muxti te image yooyu waa Dakar xewil nañ ko waa Daarul mel lu ci doo ko jot am na un certain Babacar jógal gis nga kii biñ ma koy jébbal booba lu daw la tey kilifa la kilifa la tey ci soldaar yi kilifa la ci Abdou Khoudous mii jugal moom mii moom mii sëñ bi moom sëriñ bi du ma defee dara de li may àndalay defee mooy tul dagg gi del xool micro yi ah. Abdou Khoudous mii taxaw ci daara yi li ma ci jublu du waree ne am na ay taalibe lii ak laa dama leen a bëgg woon ne bu ngeen nekkoon di bay gerte su may ñëw dama indi taalibe yi dàqa bay gerte ci Sénégal tama yar leen dama leen indi. soo ma wanee ne da ngay jaay beñe ma indi maire yoo xam ne samay maire lañ dañuy jaay beñe ma indi leen présenté leen comme ci wàllu njàng ngeen ma woo xoolal kii euh, jàkkaarloo ak gars yi kii mooy Babacar Ndiaye gis nga kii dafa def bac benn yoon amut defe na day ba ma ne ko jàngil mu defaat bac amut defe na day ba ma ko jàngil mu defaat bac ma ne ko gis nga boo ko doon def cent fois di nga ma indil bac ma ne ko gis nga Cheikh Ablaye Cheikh mais ba électronique la def ma ne ko bàyyil Cheikh Ablaye ñoom ñee ngay àndal ndax ñoom dama leen jox beneen liggéey bu bokkut ak sa bos yow jàng laa la def loo ñee dama leen liggéeyloo ci daara ji na nga dem cité dameel sa kër nijaay toog fa bul ñëwaat fii fekk ma fi mukk te di loo mbag gis nga bi muy ñëw daf maa indil bac indil ma major génn ko ci Sénégal au Japon moo fa jiitu major Mazor la nek Sénégal au Japon bi mu génnee ci saase Sonatel dal di ko jël légui def na fa ay at ba légui ci cadre Sonatel yi la bok soxnam mi ngi ipress lay liggéeyee soxnam ci dara ji yaro fi fii may waxee ak yow yalla dimbali na ko mi ngi teacher foncé bopam dekk ci. kon li ñu dublu ci lolu moy won len né duma ñew tok rek en tant que doomu daru ngeen woo ma ci seen benn manifestation bu ngeen def ma ñëw rek ngeen woon may théâtre kat woon ma ay li ngeen def fii ñu joxante ay cadeau dem dañoo war a joxante ay leçon yoo xam ni leçon da morale la ku nekk mën cee jëlee lu ko amal njariñ ci biir dundam mais lu caagin dañuy toog nii rek euh, jàkkaarloo euh, dem fet ga neex na sëñ bi kay ba mu ñëw kat kat yi nangam nangam gaa ya ko gunge loolu du importance su daje bi solos dajee bi mooy lan lañ fa jëlee ci ay leçons parce que am na ñu nekk seen sëñ Modou bi bientôt ñoom ñooy war a ñëw fii ci bi bu ngeen melee na ngeen war a mel te doxee ko yéenay formé ñooñu ñooñu buñ ñëwee ñoom ñooy formé waat ñi waaj a ñëw day mujj daaru day amaat beneen xar kanam bu wuutee ak bii mu am ci jamono ci kon loolu nañ ci bàyyi xel ana fàllukaay moom mi taalibey tarbiya moo moo leen jiite li tax loolu moom mii bi may jot ci moom booba ñoll yii da koy jëfandikoo boole ceeg ñi dàqoon a ci Sénégal ci la bokk nekkoon fan nekkoon Mbëbës fii may waxee yow du tux du naan te foo ko fekk mi ngi yor kurusam di tudd yàlla. te moo ne moo ne déet xaar leen ma ñëw xam nga lu ci doy waar ma ne xam nga lu ci doy waar. dëkkul Dakar moom Touba la dëkk ba pare dem Dakar di roy waa Dakar ba far yàqoo Dakar ñu fekkaat ko fa rek waat ko Dakar defaraat ko ba mu doon ak waa Touba. loolu nag laay bañal ku dëkk Daarul Moxti dem Dakar dugg ci milieu soo bis bi léegi-léegi nga ne étudiant la dama jàngi bu diw conseillé wala muy def nangam nga ne naaca na yollu dem naaca na nangam nekk ci ñàkk fay yoo xam du dara kuréel yi ñuy taxawal kuréel yi ñuy taxawal ci école yi donte bëgguma monopoliser kàddu gi dama defe ne rek li may wax dafay amal njariñ ñiy déglu waaye su ma yëgee ne même li may wax day gaañ wala damay lor jublu ma loolu li ma jublu mooy luy defar ndax dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk te ay sénégalais lañu waaye avant tout ay taalibe sëriñ Touba lañu te dëkk bi mag ñi jàll ñoo ñooy màggat yi sëñ Cheikh Faye moo ma ko xool dama dégg ay dara yéen a yéen war a defar dëkk bi ndax nun ay màggat lañ waaye yéen yéen mag yi dëkk bi. la tax ma nangu loolu mooy bi sëñ bii dem ci géej gi Thierno mi fi bàyyi 30 ans la am te man ëppal naa loolu ndax boo demee ba dund xaaju siècle doonu too gone doonu too gone kon bu boobaa ca yi dëkk boobee ca nga bokk su boobaa nag lépp luy defar dëkk bi war na laa conserver te yéen ñi nga xam ne fa xalaatu leen a tuxu daarul mooti bu leen topp ndaw gi c'est parce que yéen it bientôt yéen ci sës da ngeen fi ami kër am fi ay njaboot bu ngeen defarul li ngeen war a defar bu ëllëgee waxuma yéen li ñuy wax ci yéen te di ko naw te defee ne wërta am lu lu ko gën a yéeme mooy am ci ci njaboot yi ci di ñëw loolu rek laa bëggoon a wax ak yéen di jéggulu ndax it bu nu dajeeg yéen ñu ne guide spirituel la repère la war nañu wax leen lu leen amal njariñ xoola borom njaxas bay photo kaay nii kaay gis nga kooku gis nga kooku bàyyi laata pourtant ingénieur la mi ngi mi ngi ministère de l'hydraulique la de fi mu toll ndox mi wàllu taw beeg dex géej géej yooyu moom mi moo koy nat te ci daara ji la yaroo waaw maa ko ne na ñëw Thiès la dëkk mais mi ngi liggéeyee euh, Tamba Tamba la taale otoom ñëw li ma ci jublu mooy rek wan waa dëkk bi ne la def ca àll ba mënees na ko def ci dëkk bii jëwriñ biróom Samba ngi nii jugal taxaw gis gis nga forage forage bii ngeen naanee fii ci penku bi kii moo ko defar forage u daaru bii ci penku bi kii moo ko defar pourtant dafa daa wax bis bu set sëñ Bass Abdou Khoudoss ñëw na fa nangam nangam waaye teewul mi ngi ci taalibeem di liggéey li mu liggéey bëggut sax wane ne taalibe bu Daaru Muxti la te moo defar ngeen farlu li ci yéen daal mooy li li leen Baye Abo nee na defar ba la nekk di defar ay nit da nga koy wane <laughs> den man kay bu ma bëggoon a wane échantillon yi ma am fii fi la ñu fanaan euh, Cheikh Abo jugal taxaw moom moom mi daana bagage yu bari jaar na ci te fii nu toll bu ma duggee France bu ma àndee moom mbedd moo jaar tubaab yi ñëpp ko xam Cheikh Abo Cheikh Abo ba mujj muy récupérer ay nit yoo xam ñoom dañuy drogué ak di nekk ci nak su dul noonu ci biir Paris mu di leen récupérer di leen orienté te pourtant bu ñu neexoon orienté leen wala ñu yaree leen ci façon boo xam ne ay dóorkati martu la ñuy doon di nax nit ñi di jël seen alal yi ñii ma yar ñu nekk ay chef d'entreprise tey jii mënoon nañoo braquer seen xaalisu entreprise yi defee na war nañ koo mën a joxe addiya mais dañ leen di former ñu nekk ay bons citoyens jàmmal seeni réew nekk jàmm ci seen réew nekk jàmm ci seeni dëkk soxna Adja mee doon wax maa ko suivre loo journalisme defe naa moo doon wax léegi nii journaliste la en même temps ci wàllu entreprise yi da ci amaat beneen diplôme ci lu jëm ci saytu mbirum entreprise soxna Adja Cissé gi nii toog sama soxna la moom ab ab juriste la droit la def en même temps mooy directrice finance bu mairie ville bu Thiès soxna Soado ngi nii ubbi centre de formation di former ay nit man ku ma yilif ku ne xanaa kay nga gànt waaye man ku ma yilif ku ne bëgg naa nga liggéey bëgg naa nga def daal mënuma am nag cent pour cent que ñi ma am ñépp na ma bëgg ñëpp mel ni mais danaa fexe ba nag yu ñuul yëpp ma am ci soow yu weex te rek mooy l'essentiel bi kon nak wa daru am ngeen responsabilité bu reuy ku melni jeurin tierno li nga def ni ndaw nga gis na sen uh, état yi ñew président yi ñew ak ministre yi ñoo ngi leen di ñaanal ni ñu leen ko gàtt ngalé yalla dimbali leen ba ngeen don ko uh, ci zahira mo batinan ndax yalla man nak waye ginaaw gone yi and nañu ak yeen ngeen def ay kuréel na ngeen farlu ci di leen tarbiya ak di amal ay jataay yoo xam ne di ngeen defar seen bopp yi bañ bañ a fàtte culture dëkk bi ak doxiinu dëkk bi ndax loolu ëllëg ci seen kaw rekk la jëmaat te nun ay taalibe rekk la ñu doon professeur yi ku fi ñëw xam-xam rek lañu mën a jàngal looloy li ko war waaye amu ci kenn ku sëñ jël bant di jëm ci doomi jàmbur na yaa ngi koy yaraat sëñ ñu parce que loi bi mayu leen léegi di dóor aka def naka sudul noonu moo tax léegi yar yombatul kon nag nañ góorgóorlu bu ñu kenn dóor yar waaye ñun nañ yar suñu bopp defar sunu bopp ba bu ëllëgee ni sëriñ bi bëgg ab taalibe mel ni bu nu dekkee dajeeg sëriñ Tuubaa mel noonu noo ngi ñaan nag lycée bi yàlla teg ci loxo ba lycée yi ci Sénégal yëpp lycée bi bokk ci yi ñi lim ca gën a kawe yàlla may leen ñiy def examen suñu borom jàppandal leen ñu am ay d'office am mention ñeneen ñi topp ci ñoom te nekk ci seem yi yàlla dimbali leen ñoom it la ñuy làmb ñu daj ko ba mën a ñëw ci lycée yi ñi ci université yi yàlla làmbali ñoom it seen i fas ba ñoom it lañ soxla ci ay diplôme ñu am ko daaru mu te am ay cadre yu dul jeex waaye yu ñu yar yu yaru yu murite yu lislaame yoo xam ne ñu mën a diriger adduna bi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ok jaajëf jaajëf dégg nañ lool dégg nañ euh, dama fàtte tamit euh, sëñ Xaadim mais mënoon naa ko jël comme exemple. sëñ euh, Xaadim bu sëñ Abbas. jàngee France. Sorbonne. génnee fa ñëw bind ay livre yoo xam ne ci wàllum yoonu murit naka la ci nit mën a sukkandikoo ba développé àddinaam ci diggante boppam ak boroomam te moom mais mënoon naa ko jël comme exemple lii may def mu toog fii def ko di sama rakk moom it di doomi sëñ Abbas sëñ Maam Thierno mii mi ngi ci millier bi. jàngale la moom it. defe naa jàngale na 15 ans fii nu waaw ah 20 ans jàngale na 20 ans 20 ans. waaw mooy mi ngi ci milieu bi. depuis waaw depuis 94. kon mënoon naa lii may def ñoom ñii fi teew sëñ Fallou ne woon na jataay boo fa amee ay mag am fay rakk. bu la neexee ne galas noppalu parce que bu ñuy wax sa mag mën naa wax hmm. boo yónnee yónni sa rakk waaw kon nag maa ngi sant sama rakk yi ma fi dajeel yëpp ñu bàyyi seen soxla baax lool gën ma ci anam yëpp ba noppi jox ma seen bopp anam goo xam ne yéeme na ndax ñoom yi koo ci gis amul jot ñu ngi koy xaar ci ay barab yu wuute waaye bu ma soxlaa walla ma woote ñom ñep ñu dag seen soxla yi seigne fallo ak sëñ Mouhamad bi waji lim tuddu len ñoom it ña nga dalee ci ginaaw waye ñom ñep gis na len te xamna yeg gi ñu amel koor gi ñoma gëna neexi dépense waye damay sama juma ji may tabax ngelaw li duma fekk ñu tecc seen kër yi yanu seen añi seen kër and ak man ñew di añé ci fi te lu seenu baax rek la seigne mam Thierno mi nak mo fi teewal seigne Basirou Antañang mi khalifa Cheikh Ibrahim xamna bala ñu juk dana jotali baat ñaanal mbolo mi bala préfet yi waaw waaw kalaas euh, yi ñuy wax daa manqué moom la ma sëñ euh, leer naa di fàttali waaw yooyu tamit euh, gaynde Fatma dane woon nit bu xasee wax moomut boppam mhm. noonu laa defoon ci bi ngeen ñëwee na ma yow lañ pare ne nanguwuma woon a wax dara dama bàyyi ba jëf jot rek ma jëf laa man te defe naa seen xol sedd na ca mbirum kalaas yi tamit fàttali na ma ko bon volonté yaa ngi ci dëkk bi sëñ Xaadim Ñas ñoom a ngi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen su ko defee Euh, ñu togg ko laaxu kajoor insha allah waxtaane ko ginnaaw ñeent lañ soxla ñu xool nuñ ciy demee ndànk-ndànk ba yàlla may nu liñ ci bëgg ñu amee ko ni ñu ko bëggee maa ngi jéggulu ci garde gi ma garde rajo bi parce que ëpp na ndax mbooloo mu toll nii prestation yi xale yi bëgg a def ak yooyu yëpp nga gàllankoor ko mais maa ngi leen di xamal ne soirée bi danaa ñëw ah ma ñëw ma ñëw